ña nga jëm arène nationale dimanche novembre Eumeu Sène Tapha Tine lamba lay la laa ku tëgg loolu ñu ne Albourakh Events ah mbokk ku moom boobu drapeau Albourakh Events ne monsieur Lat Diop ministre des sports la ñu tuddee lamb ji di grand combat wuli boucher ketchup dem lamb ja Mathieu Jacob Baldé Ndigal Weus Jambar Kolifay 2 Thiatou Daouda Fall Kirel Albouri Marley Mbaye Gouy Gui le combat sera retransmis en direct et en pay view pour la diaspora loolu ma ngay amee com ah mbokk wut leen gaaw seen i compte mais leen yaakaaru Guédiawaye la futur roi la na ñëpp la ilaha illallah ñëw diggante Siteu ak ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2 balaa ñëw tuuti ci bëri bi ci jàkkaarloo beeg taxaw bi dafa am lu fa xewoon loo xamante ne boobu ba léegi Lamine yaakaar naa ne jur na polémique ci euh, bi Ama jëlee couronne bi teg ci boppam am lu ñu sànni mu delluwaat ci Ama Balde jur na polémique bu bëri nag ba ñu ne euh, diw Moustapha moo sànni gàllaaj gi Ama Balde yow mi fa nekkoon nekkoon ci wetu moo Modou lan nga ñu mën a leeral tuuti ci loolu ba bis xaaral hmm. que yaakaar naa ni euh, mbokk yi niñ ko ni ko sénégalais di waxee rek Sénégal Buzz 221 ak Lutte TV bu ñu mbëkkantee lu leen demoon ci xanamu sénégalais yu bëri dañuy bëgg mu leer. gis nga falalaay loolu la sànni. Mhm. gis nga. Mhm. lii la sànni. Tapha Gueye delloo ko. ñu wan ko internet yi. Lamine ñu ñu may leen ko ñoom it xool. wala ma envoyé leen ko rek après. Mhm. vidéo bi dafa xaw a gàtt. dafa gàtt. nii nii. yónnee ñu ko dina sénégalais dinañ ko gis parce que mhm. boo gisee ñu def lii sax juste pour leeral rek mhm. parce que am na yoo xamante ne je pense que ne xaju fi quoi xaju fi Tapha Gueye mënul ñëw ñu tuddee ko làmb ah mu ne day jàppale Modou mhm. jàppalewu ko ci suuf di taxaw ci kaw di ko jàppale Tapha Gueye dépassé na bi muy bëri sax est-ce que mës nañ koo gis mu jël ay affaire di ko sànni mbër waxatuma laa bërewoo làmb joo xam ne sa yoon nekku ñu tuddee la ko nga war ko taaral mm-hmm. ah ñu ne yow yaak koy yàq dañu ndiwaat suñu xel yi xam ne lii defet kese la lii sport la mm-hmm. Tapha Gueye waa ji moo sànni affaire bi Tapha Gueye jël affaire bi bi coow lu kii Tapha Gueye jël affaire bi delloowaat ko ko mais affaire bi moom la dal dafa dal muuru dal ci moom parce que ñoo taxaw nii mm-hmm. mais am na droit delloowaat ko parce que xamul lan la mais donc où est le problème nañu bàyyi loolu xam nga làmb ji jeex na xam nga ama rafetal na affaire ba mu rafet xam nga ku ci mënul wax lu rafet isal ma la xoolal leneen loo ciy wax wala nga noppi xam nga parce que tey kuy bëre ku ne war nga xalaat lendemain combat bi lépp looy wax rek na nga ko xoolaat parce que lii dafa jar a sóor quoi. dafa jar a sóor quoi. am gis-gis euh, buy mooy bi Ama sànnee loolu Tapha Gueye ak lu mu mënti doon waru woon jëlaat loolu di ko delloo sa xalaat ci loolu parce que tamit xel yi bokkul ñi dañuy xalaat li ñi xalaat li am na ñoo xam te ne nañ da fa waroon a bax ñi ne euh, waroon na ko jël delloo ko yow sa gis-gis lan la si. waaw mais xam nga tey ku nekk ak sa gis-gis yow yaa ko wax. Mhm. Tapha Gueye euh, dañ ko ko sànni xamul lan la moo tax mu delloo ko. exemple ah, tey dama lay wax merci tey dama lay wax tey comme ku ci mel ni ñoom Ama Baldé quoi ñii na naan am gàllaaj ñii dañu luyee exemple la donc bu ñu ñoom bu ñu jëlee benn sànni ko mu dal sa kaw yow bu la sa xel joxeen da nga war a da nga da nga koy delloo mais du question du question de dara mais bu ñu ko jël ba ko yóbbu foo xamante ne eggu fa man mi su doon man la sax ñu sànni ma dara benn gàllaaj boo xam ne xaw ma lan la parce que bu doon lu baax duñ ko sànni Modou gis nañ dox ba foofu door waaj waaw mais bien sûr boo damay dem moo na ma taxawal daa lay yónnee vidéo yëpp nga xool mi ngi nii boobu sax xaw na gudd xam mi ngi nii gis nga moo na ma taxawal taxawal gis nga mhm. taxawal mën naa gérer sama problème mooy ñëwaat mu buuxaat ma taxawal mhm. xam nga tamit am na loo xam ne rafetalul làmb quoi gis nga mooy li may wax làmb Modou Ama fi mu tolloon ku ko defarul waroo ko yàq mhm. xam nga tey man loolu laa xam isal ma lax moo tax ma ne saay tey wallaahi bu dee man rek coow du mës a jóge ci man ñu ne moo yàq làmb ji parce que bëggoon nañu bëre gaaw jóge fi nekk ci leneen ko mm-hmm. yeah kon coow loolu noonu la demee pour ñi nga xamante ne comprendre ñu ngi waaye noonu la demee waa ji moo sànni affaire mu dal noonu ci muuru fii la ko dal dal ci kii Tafa Gueye mm-hmm. yeah ne Tafa Gueye moo indaale loolu non jamais jamais jamais jamais Tafa indiwul dara macha allah yaakaar naa ne kàddu leeral yooyu am na solo loolu pour li nga xamante ne moo nekkoon polémique ci làmb ji euh, bu ñu duggee ci biir géew bi arbitre bi taxawloo Modou taxawloo Ama Balde sifflé combat bi li Ama bëri ak Modou. bëri ak moodu mooy dama ne daf ko desee respecté rek xam nga te Modou moom mënoo bëree un grand monsieur bu mel ni moodu te doo ko jox lim moom xam nga. doo ko joxul lim moom rek da lay rectifier vite fait parce que Modou du ñeexu ñebe kenn comme ni ñu koy waxee chaque jour rek. Mm. du ñeexu ñebe kenn. li may wax chaque jour rek. Modou Lo moom ku ko yàpp da nga koo fekk mu sol jàllaabe rek. <laughs> billaahi ma ne. gu mm. ko yab. da nga koo fekk mu sol jàllaabe. non leneen ngay wax. <laughs> mais ñu bëri dañoo jàpp ni Ama euh, donc comme ni nga waxee da ko respecté waaye ñu bëri dañoo jàpp ni mëninam la doon defe si. waaw xam nga tey bis bu nekk ak lu mu laaj. bis bu nekk ak li mu laaj gis nga Modou. Mm-hmm. keroog nga ko gis arbitre sifflé mbër kii mu arrière. déplacé wu parce que bis boobu loolu la laaj. bis boobu laajul woon ay takk tamit dara dara dara dara tey Ama ñaata yoon la jeex ci yaram muuru fekk fa dara tey su jàppoon ci téere nag xoolaatal combat bu baax. Mhm. loolu la laaj bis bu laajee tey nga taxaw. xaar déglu sa adversaire même bu dee deux minutes da nga ko war a def. Mhm. mais du bis yëpp da nga war a ñëw rek bëm non parce que làmb moo tollatul foofu quoi. foo mu gàcce la mais ku daanu rus donc il faut nga calculer bu baax. Mhm. da ngay gis euh, wala dangay ngay nangu li ñu bëri wax Ama bés bi dafa nekkoon pression ci moom wala dafa diisoon ci moom. non jàpp ma parce que Ama champion la bëri na fi bis bu nekk. xam nga donc ma ne bis mën na rëy ci moom mën na nekk bis bu nag mais jàpp ma ne mës na mën na rëy ci moom. yeah jàpp ma loolu defet moo ñëw ñëw na après voilà day tourner page bi nekk ci leneen quoi. Euh, ñu bëri tamit euh, dañoo wax ni xeex bi du xeex ak amaa donte ni kawoon na ko mais ba Ama nekkoon à 100 pour cent Modou xeex bu mu xeex des naa jaar yoon. gis nga loolu yow. waaw mais ñu ne xeex bi def naa jaar yoon mu ciy génn yàlla na ñàkk a jaaree yoon nii ñu ciy génn rek ma ne ko yàlla na ñàkk yoon ñu ciy génn rek mais daal en tout cas lépp loo mënta dégg combat bu ñu dugg bu ñu ci génnee tiré nañ ci leçon quoi que muy erreur ak yu kii yëpp dañ ciy tiré leçon. bon ñoom xam nañ ko te Euh, dirigeant yaa ngi fi dinañ ko ratifier incha allah. war ngeen tiire ngeen ko ci ci non loolu su ma ko ngeen def ci làmb ji. waaw ah, mais loolu laaj erreur yi man moom saay comme trois points yi ñëw na rek alhamdulilah quoi. après erreur yi ñu gis tamit lu ñuy waxtaanee lay doon rek parce que Modou moom champion la quoi te xam nga sportif la. day toog di analyser di xool. gars yi ne ko lii ak lii ak lii waroo ko def mu travailler ko pour prochaine fois mu bañ ko def. waaw mhm. bi Modou waree ama ndomb gis nañ ni da nga tëb barrière yi moment boobu lan nga yëg Papis. <laughs> boobu pour man ama daanu na sax barke yàlla. <laughs> pour man boobu jeex na moo tax ma tëb noonu xam nga boo gisee dama tëb sax <laughs> après ma taxaw xam nga mhm. mais policier bu ñu ma bàyyoon foofu booy bee du yegg si après policier ñoo ma génnee quoi. mais nag loolu naroon. non buñ ma bàyyi foofu du yegg si. loolu naroon non dama ko xam rek dama xam ne bu fekkoon foofu laa toog policier yi génnewaatuñ ma. Mhm. non kon kee di ñëw du yegg parce que dèjà bi muy daw di ñëw man maa ngi doon daw pour dugaat boo xoolee image bu baax. Mhm. xoolaatal image yi. bi mu dawee di ñëw man maa ngi daw di dugg dugg naa ba kii policier yi xëccaat ma. boobu kay dama doon dajeeg moom mu nekk ñaari combat ji biir géew bi moom <laughs> waaye mais xam nga tolluwaay la rek xam nga mhm. far moom metti quoi. far moom métti xam nga ay ah, ak ah, ah, non mais loolu aw ma dara lu ma ciy wax parce que xam nga moom tey je pense que ne jógul pour yàq làmb ji xam nga donc tey far moom métti xam nga ak bëgg nit tey neexul xam nga sa nit nga tiim gis ko ñu tiim ko xam nga di ko door door yu métti yooyu xam nga neexul quoi neexul ci xool foofu Modou di nga def noonu yaakaaru ma de <laughs> eh? Eh? waaw mais nga mbëkk waaw ba ñu sànni affaire bi gis nañ nga tëb ba ci kaw mbëkk xamoo xeer la seetlu woo ci dara léegi bu am yeggoon foofu Modou doo def dara waaw parce que bokkul tey damay wax mooy li may wax rek gis nga làmb bi toll na foo xamante ne dañ ko war a defar imagine toi bis bu toll nii fi ñu ci jaar yëpp yow nga toll ci kaw yor sa li nga yor sa waay lan nga man xaw ma sa la en tout cas wow na daal xam nga nga toll fi nga toll xam nga yor sa li nga yor saay di sànni mais loolu sut wallahi bu daloon Modou combat mën na bañ am lu leer laa lay wax loolu su daloon Modou combat bi du am non si billaahi am na yoo xam rafetul quoi bàyyi nañu yaraat suñu bopp quoi mhm. waaye parce que mbëri ñooy mayante xaalis léegi yow ki nga ne moom nga bëgg li koy may xaalis nga bëgg ko ko xañ mhm. yow lan nga bëgg yow mhm. waaw yooyu amul sens billaahi amul sens waay non yaakaaruma ko de parce que man Modou fi déggoo li ma la fekk daanuñu ko gëw ma ne day daanu waaye ay wër ndomb yooyu noonu pour nga wër ndomb Modou Modou ñaata combat bëri na fi ñaari ñu wër ko mu génn ci waaw mm. ah. Modou mbër wër ko du yomb de allah ah yaakaaruma ko de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 ña nga jëm arène nationale dimanche 12 novembre Eumeu Sène Tapha Tine lamb sajetina laay lay la laa ku tëgg loolu ñu ne Albourakh Events ah mbokk yi ku moom boobu drapeau Albourakh Events ne monsieur Lat Diop ministre des sports la ñu tuddee lamb ji dix grands combats wuli boucher ketchup boucher ketchup rek jaral na maa dem lamb ja Jacob Baldé ndigal Weus Jambar Kolifay 2 Caatu Daouda Fall catégorie Marley Mbaye Gouy Gui le combat sera retransmis en direct et en pay view pour la diaspora loolu ma ngay amee ca seen com ah mbokk wut leen gaaw seen i compte pay bo diw di événement la bu ñuy xaar yaakaaru Guédiawaye la futur roi des la futur nee naa leen heure bu ñëwee day na ñëpp. la ilaha illallah lu xew ñëw diggante Siteu ak ki nga xamante ne moom mooy Lac de Guiers numéro 2.